deuxième combat la soirée diggante ki nga xam mooy bébé ama bu mbudaay ki nga xam ne mooy ninki bu ikiri ginnaaw raay ca jàllo jaay arbitre baa ngay laaj juge ndax pare na ne nañ ko waaw noppi nañ arbitre sifflé na génn seen diggante ama bu moo ngem boo ngem lu xonk noonu ninki moo njool moo sut ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi lewaatoo ndeysaan ñaari xale yaa ngi lewaatoo diggante ki nga xam ne mooy bébé ama bu mbudaay ak ninki bu ginnaaw raay ñi ngi lewaatoo ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo ñoom ñaar ah bébé ama sànni na ninki payu na ninki sut bébé ama jël na tànk ninki jël ko jël na tànk bi jël na ko jël na tànk ndenge a ah, ndenge barikat la laa ilaaha illallah génn Bébé Ma kal na ndenge laa ilaaha illallah daan na ko laa ilaaha illallah xatar bi na ko daan na ndenge laa ilaaha illallah jël ba amul benn werante xale waa Poudaye Bébé Ma daan na ndenge xale baa ngi noonu dafa mën a bëre dafa mën a bëre moom Bébé Ma gàtt kontaan nañ